BRT bi El Malick Ndiaye moom rek nekk ci woon kese ndax bu weesoo moom ak délégation am na waa Ndakaaru yu bëri yoo xam ne euh, ñam nañ ko naka démb xool nan la mel waxtaan tam jëm ci euh, nañu ko gisee ak njëg yi nga xam ne moom lañ doon appliqué ni ki pass maanaam ay tarif lépp dëxuñu ci reportage yu soxna Aïcha Ñing ak Germaine Dior mi woon ci BRT bi. gannaaw centre de contrôle des opérations ca gàddaay yéeg ci bus transit yi jëm ca station bu Petersen ba ñu fa yeggee ministre des infrastructures lii la digle di insister rek ci sénégalais yi ñu la seen bopp yëf yi aar ko xam ne sunu moomeel la te dañu war a fexe ba di ko gën a mën a jariñoo ay ati at xalaat des générations futures personnel bi liggéeyee ci BRT bi sawar lool dañuy xëy à 5 heures du matin la ñuy xëy euh, commencer jël seen prise de service euh, commencé dem station Euh, taal seen équipement seen machine toog pour mën a xaar premier client yi ñëw à partir de 6 heures du matin. ñooy orienté clients yi bu ñuy dugg ak bu ñuy génn ak tamit jàppale PMR ak UFR e bu ñuy yéeg ci bus bi di participer tamit à l'information aux clients. passagers yi am ci mbégte. jël na kon ndax vraiment pour bëgg gaaw egg rek waaye yal na jàmm yàgg. yoon bi gaaw na amul embouteillage. amul dara loo xamante ne mu ngi lay gàllankoor tey maanaam ñu bëri dañoo tardé seen liggéey parce que dafa am accident bu amoon ci autoroute bi mais ñun moom sentiruñ ko. ça va ça va comme si j'étais à Paris. bari na ay station yu ñu teg ci yoon yi yombalal askan wi dem ak dikk bi saa su ne. ginnaaw ndajeb conseil des ministres naka démb premier ministre Ousmane Sonko tey ca Diamniadio dina jiite lu ñuy tuddee conseil interministériel eh, jëm ci waajtaayu nawet bi rawatina nu ñuy def ba xeex wàllu inondation boobee tey la am na beneen ndaje boo xam ne samedi lañ koy séentu ngir waajal tam examen scolaire yi war a am ci atum ren 2024 démb tam ci conseil de ministres Ousmane Sonko wax na lu jëm ci waajtaayu déclaration de politique général ndax xam ngeen ne gouvernement bu taxawee bu bees war na eh, ci ñetti weer yi nga nga xam ne moo ci topp premier ministre dem assemblée nationale yëkkay ay kaddu def déclaration de politique générale ci kanamu euh, député yi nga xam ne ñoom ñoo fa toogal askano bu ñu sukkandikoo tam léegi ci communiqué conseil des ministres naka démb ministre bi ñu dénk wàllu justice wax na lu jëm ci euh, ban traitement judiciaire ci wàllu yoon la ñu war a mën a jagleel rapport bi nga xam ne cour de comptes def na ko ci nan la ñu yoroon a xaalis bi nga xam ne moom la fi réew mi yëkkati woon junni milliards ngir defante ak feebaru Covid 19 dimbali ci askan wi lu jëm ci rapportu cour des comptes boobee professeur Penda Mbow rapport cour des comptes bi ak beneen professeur Penda Mbow ci boppam jàpp na ne état bi war na mën a fexe ba képp ku mosoon a jël alal nga nekkoon ancien ministre wala tam directeur général ci ay jamono nga mën ko delloo Euh, ndax gestion ba nga xam ne moom nga nga def président bu mouvement citoyen démb mi ngi woon ci ab conférence de presse ci ndakaaru ñaawlu tam yori nu suuf si ak coow li nga xam ne moom moo ci am ci jamono ji penn Mbow euh, ñaawlu tamit ne jigéen ñi bëriwuñu lool ci biir gouvernement bi ñu déglu ko euh, leeralub Tidiane Diallo ma ko fekke woon ak Madani Marega ginnaaw bi ñu publier rapport OFNAC ak Cour des gis nañu ay njuuj njaaj yu bëri ci gestion directeur généraux yi ak ministres yi loolu moo waral professeur Penda Mbow di xamal kilifa yu bees yi nañu gën a taxaw ngir ñu restituer alal yi ñu jël te état moo ko moom. te nag léegi mbedd mi mbeddum buur la def fi ba la jóg alalu buur la ñëpp ko ñëpp ci bokk yam def fi war a jóg. parce que itam li nga xam ne sunu réew da koy générer nee na ñi ngi jëm ci pétrole ak gaz or bi. bu fekkente ni ñiy jël or bi dañ koy jël yóbbu ko mu muy seen man sax damay toog ma ne waaw alal jooju yëpp lu ko nit di doy loo di souffrir loo sa peuple di xañ sa peuple dem nag di tranquillement yow da nga ciy dund sa njaboot di ci dund ngeen di ci bànneexu ngeen di am seen i avion seen i oto yoo xam ne ne oto yi day am ba am eh, ay ay ay yu ciy nekk ngeen di noos seen noos ngeen foog ni loolu yàlla da koy seetaan yàlla mënu ko seetaan ak moo gën a bon ci àddina ci wàllum problème suuf si tamit dellu siwaat ci mbir mi waaw yow da ngay gis kenn koo xam ne ñu ne hectare yooyu yëpp moo ko moom lu mu koy doyee. ñi ko yore bu ñu demee ba xam ni ñii ñoo ko yore nañ ko nangu delloo si ko ci askan bi waaw. non mënuñu ko bàyyi nii te gis nga lii du tey du tey rek dafa yàgg. di ñaaw lu tamit anam yu ñu tànnee gouvernement bu bees bi ndaxte moom dafa gis ne jigéen ñi bariwuñu fa. daal doo leen ma ni nag ñeenti jigéen rek ñoo fi war a mën a nekk ci gouvernement. et puis li ma gën a metti mooy jigéen yi xeex kenn du leen fal dañuy fekk ku xeexul deful dara toog fële ñu yow jox ko pos pour lan loolu. lu ñuy woowee patrimoine bâti de l'État loolu tamit commencé nañu ko jël suñu sukkandikoo ci professeur Penda Mbow Mamadou Fofana li ñëpp di séentu ñeen ñi di ko xalaat ci suuf mu am ñenn ñu mel ni Penda Mbow di ko wax ca kaw rapport Cour de comptes yi rapport de gestion yi nañu xool nuñ koy euh, nuñ koy lijjantee ci wàllu yoon te xel mën nañ cee dal sax parce que conseil des ministres ministre de la justice évoqué na lu jëm ci fonds Covid bi. Oh, ak traitement judiciaire bi ñu ciy war a mën a xaar. bien sûr xam nga mbirum fonds Covid 19 yi waxoon naa la ne la gaañ ñi ngi fay fu mu nekk hmm. la woon. cour des comptes defoon rapport ci ñoom. procureur ne saisir na dossier bi pour mu am suite judiciaire mmh. bien sûr ñu dénk liggéey bi waa dëkk ak commissaire Adramé Sarr macha allah liggéey bu mu ci def ci juróomi weer. Mmh. situé na les responsabilité sur les neuf ministères les sept reconnaître nañ les daal ci seen bopp. Mmh. faute de gestion dafa am. seul le ministère de la culture. moom nañu setal dage bi ak le ministère de la jeunesse mais le res yëpp la waa wax et jëbbal ko procureur moom mooy sept ministères yooyu noonu seeni dage yi lañu def ci mbirum koppar gi dafa jaaduwul teguwul ci yoon te am na ci ñoo xam ne sax dem nañ ci ba wax ne ne li ci ëpp buñ ko defee defuñu ko ñoom kese cela veut dire mooy am na ay injonction yu ñu jot mm-hmm. pour war a mën a doxal doxalin gi nga xam ne tey yoon teg na leen ci loxo mm-hmm. nee nañ nag ñu ngi fay nànk-nànk xaj na am na ci loo xam te ne nii luñ ko. mënaguñ ko wax ci penc mi mënaluñ ko wax ci penc mi. mais le wërteleer moo di ne cour des comptes également dafa am lu ñu tuddee chambre financière boo xam te administrative et financière bi nga xam ne lu jëm ci mbir yu mel nii buñ la ci duudee baaraam tuuma ba jàpp la loxo ci poos da fay dem di fay di fay di fay ba mu mat ñu doog la bàyyi. maintenant est-ce que dañoo war a yem rek tey. au regard de l'ampleur bi nga xam te ne nii am na par rapport ak wàllum jël alalu askan wi wala sàcc alalu askan wi ci loo xam ne teguwul ci yoon dañ ko war a yemale ci rek na nga fay bu defee ñu bàyyi la est-ce que ay sanction pénale waruta mën a am mm. est-ce que amul yeneen type de sanction yu ñu war a envisager justement pour dissuader yenn pratique yi nga xam ne tey jii nii mun nañ wax na ne daanaka dafa mel ni tukk su benn sànj réer ci réew mi gaa ñi non seulement tibbati ñu woon ñaari benn loxo mais daanaka loxo yeeg tànk yeeg nopp yeeg bakkan yi lépp dañuy tibb mais en plus de cela ñàkk weg gi nga xam ne nii ak kerse gu ñu waroon a am sax au moins jàpp na ne lii kat de man gënuma ko yellool ñii tey xalaat ne ne am na ñoo xam ne ren maa ngi nekk ci château wala maa ngi yor sama 4x4 gune gunn maa ngi yor leneen ak leneen ñii pour ñu mën a ndékki sax problème la hmm. véritablement il faudrait que ne serait-ce pour loolu ñu war a mën a def de telle sorte que ñi nga xam ne ñooy jiite nii dootuñu xalaat li ni mel génération future bi ñëw dinañ xam ne de ñi fi jóge de naam amoon nañ sax la fa sooke waaye jubbanti nañ ko de telle sorte que tey yorin gu sell gu wóor ak gu set fii nii ci Sénégal nekk na une réalité et véritablement loolu pour mu am il faut des sanctions il faut des sanctions peut-être sur le plan pécuniaire pécuniaire il faut des sanctions sur le plan pénal il faut également peut-être ñu jéem a xool nu ñuy def de telle sorte que quand kenn dootul duggati ci pratique yi nga xam ne du def lu dul gasagal li nga xam ne mooy gafag réew mi ñu dikkaat ci